ña ngay xaar verdict euh, ca cour d'appel bi nga xam ne moo waroon a àttewaat mbirum Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz euh, ci la euh, kii nga xam ne Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Ousmane ak Mame Mbaye ci la Barthélémy Diaz le maire de Dakar def benn jàkkaarloo ak tas xibaar taskatu xibaar yi lu war a mat ñetti waxtu mais daanaka. li ko taxoon a jóg mooy wax ci forum euh, sur l' économie euh, solidaire et sociale bi nga xam ne moo xewoon Dakar mais ñi ci ëpp wala boog sénégalais yëpp su ma ko sañee di liñ gën a retenir mooy kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko euh, jëmale ko ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mu koy woowee sama doomu ndey Ousmane. dinañ ñëw ci les conséquences de la décision bi nga xam ne moom la cour d' rendre démb. ci Ousmane Sonko ci parti mais également euh, ci Sénégal ak ni mu nar a doxee fii ak élection présidentielle yu 2024 mais tey dama bëggoon euh, ñu taxaw lu bëree bëri euh, ci sorti wu Barthélemy Diaz parce que dafay intéressant Sénégal yu mel ni su amee ñu taxaw jéem ko décrypter jéem ko liiraat jéem ko analyser ndaxte mas naa fi wax fii laa ko waxe woon ci béréb bi ma toog ne la politique et le cimetière des amitiés te boo xoolee Sénégal ni muy doxee ci wàllu politique dangay gis ne politique euh, tas na ay diggante yu baree baree bari bu ñu ko sañee sax ne politique tas na ay sëy politique tas na ay famille politique tas na ay daayra tas na leneen ak leneen ak leneen loolu moog politique ñu ànd ci biir euh, Sénégal te dinaa ci euh, ñëw léegi mais dama bëgg ñu taxaw ci li nga xam ne mooy sortie wu Barthélémy Dias ak dëgg-dëgg lan lañ yaakaar ne moom moo ko motiver euh, faatu man euh, dimanche non non euh, dimanche exactement dimanche ci guddi laa toog di seetaan benn sortie boo xam ne Ousmane Sonko moom moo ko defoon jëm ci procès bi nga xam ne moom lañ programmé woon le lendemain muy lundi ci la waxe woon ne procès boobu déjà moom du ca dem. mais également euh, ci la expliquer yu bëree baree bëri euh, ci réewum Sénégal ak ni muy doxee ci wàllu politique rawatina seen coalition bii di yeewi askan wi am na lu mu ci feeñal ci dialogue politique bi nga xam ne moom la président Macky Sall woote am na lu mu ci feeñal moom Ousmane Sonko wax ne am na ñoo xam ne ñi ngi waxtaan ak le président Macky Sall te buñ ko waxee sénégalais dañuy dar seen gémmiñ parce que duñ ko yaakaar ci ñooñ bi ko waxee nag am na ñu bëree bëree bëri ci ñun ñoo xam ne commencé nañ di xalaat naan est-ce que du diw est-ce que du diw est diw xel yi dellu ci li Macky Sall waxoon ak Idrissa Seck ba mu nee mburoog soow bi mi ngi gën a neex te neexagul sax parce que Gloria dina ñëw fekke si ko à l'époque bari na ñu doon wax ne Gloria moomu président Macky Sall di tudd du jóge fenn fu dul ci yeewi askan wi man de bokk naa ci ñi gëmoon ne gisuma kenn ci yeewi askan wi koo xam ne quand dina jël risque à moins nant an de l'élection présidentielle di suicider wu en politique parce que suicider wu en politique pratiquement mooy dem ànd ak président Macky Sall ci jamono bi ñu ñu nekk mais ci sorti wu Ousmane euh, Sonko boobu dafa am loo xam ne daf ko wax euh, ci biir ay ay waxam te xam naa euh, dinaa ci ñëw léegi moo di ne Ousmane Sonko dafa wax mu ne moom day am na ñoo xam ne am na koo xam ne benn leader politique la bokk ci yeewi askan wi mu ne kooku dem na seeti Macky Sall mu recevoir ko diggante vingt deux ba une heure du matin ba pare ma usmaan sonk mu yokk ca ne kooku sax woo na ko téléphone wax ko ne ko gise naa ak le président Macky Sall nee na ma procès biñ la àtte biñ njëkkoon a àttee Euh, ci sa diggante ak euh, Mame Mbaye Niang juge bi ko defoon Pastef la bokk <laughs> ce qui est aberrant mais dinañ rattrapé wu gis nga bi ma déggee Ousmane ko wax loolu dama ne man de su ma nekkoon ci place Ousmane Sonko du ma àgg ci waxee noonu waxee noonu parce que euh, defe naa xale yu jigéen damay dégg ñu koy wax lu bëree bëri am na waykat sax bu ko wayoon mooy xam ba ca am na yoo xam ne da ngay xam. ba pare bañ koo wax parce que dégg ma dégg mu ne am na benn leader de yeewe askan boo xam ne gisi na le président Macky Sall mu recevoir ko diggante vingt deux heures ak une heure muy guddi kon mu wax ko ne ko lii ak lii ak lii man ci laa waxe ne dans les heures voire les jours à venir forcément di nga dégg ay contradiction ay divergence ci biir yeewe askan wi boobu séentuuma woon benn yoon que ne Barthélemy Dias dina ci tontu séentuma ko woon man je m'attendais à d'autres leaders yoo xam ne bëgguma citer seen nom fii mais ñoom laa gënoon xalaat mais dès que Ousmane Sonko wax loolu laa ne si j'étais à la place de Ousmane Sonko du ma àgg ci la ces ces genres de détails la euh, parce que la politique ak ni muy doxee ci Sénégal surtout ci contexte bi ñu nekk am na yoo xam ne le leader daf koy xam téye ko xaar le bon mais bi mu ko waxee noonu laa ne woon ça va entraîner des des réactions je par là moo di ne waxuma benn yoon que ne c'est parce que Ousmane Sonko à parlé le dimanche moo tax Barthélémy Diaz wax la lundi je dis pas ça ce que je ce que sais man moo di ne Barthélémy Diaz programmé woon na jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bien avant Ousmane Sonko di def sa sortie du dimanche loolu moom lu ma lu ma leer la euh, parce que euh, xam naa ci lu lu bëree bëri et d'ailleurs la première en tout cas man le premier contact bi ñu ma euh, bi ñu ma contacté euh, les le service de communication de la mairie de Dakar pour solliciter Walfadjri pour mu couvrir une déclaration de Barthélémy Diaz il était prévu que ñu def ko le samedi il était prévu que ñu def ko le samedi la sortie de Barthélémy Diaz le samedi donc ce n'est pas parce que Ousmane Sonko def na sortie dimanche moo tax Barthélémy Diaz wax lundi ils avaient dit le samedi après bi ñu waxtaanee seen biir ñu ne il préfère le lundi lan moo tax ñu préférer le lundi je n'en sais rien am naa ci sama gis-gis te dinaa ci ñëw léegi et d'ailleurs le samedi déjà man xamoon naa ne Barthélemy Dia dina def sortie le lundi et que su defee sortie le lundi ba pare midi la waxoon midi à midi à 14h dina juge Dakar pour dem Touba seeti Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké porte-parole du général des Mourides donc encore une fois ma leeral foofu que ni waxuma ne. Ousmane Sonko dafa def sortie dimanche moo tax Barthélémy Dias so tontu ko lundi parce que ce que je sais mu leer ma nañ mooy avant dimanche man xamoon naa ne Barthélémy Dias dina wax la lundi boobu sax moom defagu ko sur ses euh, réseaux sociaux et mais man xamoon naa ne le lundi à midi dina def une déclaration avec la presse je le savais déjà donc mais li ma bëgg wax surtout mooy ni Ousmane ko waxee ne. am na benn leader de yeewi askar wi boo xam ne dem na gis Macky Sall euh, de 22 heures à 1 heure du matin ñu waxtaane lii waxtaane lii kooku bi mu génnee woo na ma wax nangam ak nangam ci laa ne je connais à peu près les hommes politiques sénégalais ki nga xam ne moom la Ousmane Sonko junj noonu il va parler li tax il va parler mooy il va se dire une chose simple te ñi te ñi def communication bi xam nañ ko il faut anticiper avant ñuy révéler kan la kan moo fa demoon moo di ne bi ñu déggee soo ko wax loolu ki nga xam ne moom moo demoon leeroon na ko moom ci leeroon na ko ne la presse sénégalaise ils vont faire leurs recherches euh, les journalistes vont faire leurs enquêtes pour xam exactement soo ko mi ki muy junj te tudd ko kan la léegi soo bàyyee ba yow ki ngay ki Ousmane ko junj. bu bàyyee ba presse bi révélé ne usman Sonko kat ndekete Daour Diène la doon wax ne moo demoon ci Macky Sall mu recevoir ko guddi yow après da ngay dab dabaatal pour expliquer réaction ngay nekk moo tax Barthélemy Dias a anticipé pour dire que ni man mii maa fa demoon lii ak lii ak lii moo ko waral donc la sortie de Barthélemy Dias c' était prévu man je le savais que ni dina wax en tout cas samedi déjà je savais que lundi dina wax mais ni mu waxee ak tontu bi est parce que Ousmane Sonko wax na li mu wax noonu le le c'est bien ça alors wax naa sànq ne la politique c'est le cimetière des des amitiés li tax ma koy wax mooy soo xoolee jën diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias loolu moo tax man mu intéressé ma ma bëgg a taxaw ñu waxtaan ci gis nga Ousmane Sonko bokk na wala bokk mën naa jàpp ne mooy le leader de yeewi askan wi bi nga xam ne moo gën a défendre moo gën a défendre la candidature de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar ci lu feeñ ak lu nëbb parce que am na ci yoo xam ne wax na ko publiquement ñuy dégg ci ay conférence de presse yeewi ay meetingu yeewi Ousmane ko dem na sax boo wax benn meetingu yeewi ne Barthélemy Diaz mooy l'homme le plus sûr de yeewi askani pour ñu jox ko mairie Dakar bi ñu ko laajee lu tax mu ne parce que keneen koo ko jox mairie Dakar ku du Barthélemy Diaz il sera capable dem jébbalu ci Macky Sall il l'a dit ici vrai que ñun dañuy dañuy dañuy fàtte mais mais c'est wax na ko fi gis nga bi Ousmane Sonko di wax loolu au sein de de taxawu Dakar nga xam ne mooy euh, plateforme bi Ousmane bi xalifa Sall jiite même au sein de taxawu Dakar au sein de taxawu Dakar je le dis je, je l'assume haut fort am na ñoo xam ne au sein de taxawu Dakar bokkoon na ci li leen naqari dañoo jàppoon ñoom ne xalifa Sall deful Barthélemy Dias muy candidat parce que ñoom li ñu doon wax àll l'époque les gens surtout les jeunes de taxawu Dakar ñi ànd ak Barthélemy Dias ñoom dañoo yaakaaroon ne Khalifa Sall soo xam war ni la bëggoon mu nekk le candidat de le candidat à la candidature mooy taxawu Dakar présenté euh, Soham Wardini à à la conférence de de Yewwi Askan Wi pour mu nekk candidat à la mairie de Dakar gis nga jéen am na benn rencontre boo xam ne waa taxawu Dakar ñoo ko amaloon fii ci Grand Dakar fii ci Grand Dakar Khalifa Sall ma nga fa woon jour boobu rencontre bi. c'était pour parler échanger sur les élections locales et tout gis nga bi ñu ñëwee li ma lay wax ni ku bokki ci taxawu Dakar moo ma ko wax su ma déggee xam na bu baax ni wax bi ñu ñëwee les jeunes yi nga xam ne ñoo ànd ak Barthélémy Diaz dañu exiger ci Khalifa Sall mu def un choix entre Barthélémy Diaz ak Soham Wardini jour boobu xalifa Sall n'a pas voulu faire un choix am na sax ñu doon wax ne li tardeel euh, les les les prises de décision au sein de Yewwi Askan Wi c'est que Sall ne parvenait pas à fair le choix entre Barthélemy Diaz ak Soham Wardini ba loolu moo waraloon ci biir taxawu Dakar am ñoo xam ne dañoo jàppoon ne xalifa il est plutôt euh, pour que euh, Soham Wardini nekk la candidate à la place de Barthélemy Diaz gis nga moment boobu ci la ñoom Ousmane Sonko jóg ne ñoom Barthélemy Diaz mooy seen candidat à la mairie de Dakar moo tax. au sein de taxawu Dakar ñi ngi may dégg li may wax ni am na ñoo xam dañoo jàpp ñoom surtout les jeunes que ni la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar s'est imposée à Khalifa Sall la candidature s'est imposée à Khalifa Sall te li ko imposé Ousmane Sonko joué na ci rôle bu mag a mag jéen boo fàttali ko am na ay temps c'était très fréquent ngay gis Ousmane Sonko kër Barthélémy parfois Barthélémy kër Ousmane ko ils étaient ñoom ñaar li ñu doon li ñu doon nekk sax Khalifa Barthélémy Diaz Khalifa Sall daawuñu ko nekk. am na lu bari lu ñu ci xam parce que quand même on a suivi processus bi nga xam ne moom moo permettre à taxawu Dakar mu tànn euh, Barthélémy Diaz mu nekk finalement le candidat de Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar moo tax tey ñiy taxaw naan euh, euh, Barthélémy Diaz même sans Euh, l'apport de Ousmane Sonko et du Pastef ak waa Yewwi mënoon nekk maire Dakar man je n'en sais rien je n'aime wax lu ma xamul mais ce que je sais mooy sans l'apport de Ousmane Sonko et de euh, Pastef et de yeewee askan wi en duma du ma ne Barthélémy Dias woon nekk maire de Dakar mais ça aurait été très très difficile parce que xam naa le rôle bi nga xam ne ñoom joué nañ ko pour d'abord imposer la candidature de yeewi de Barthélémy Dias à la conférence des leaders de yeewi askan wi parce que ci biir taxawu Dakar maa ngi koy waxaat bari na ci ñoo xam ne leur conviction moo doon ne xalifa Sall son choix premier c'est c'était euh, Soham El Wardini mais les gens de Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko notamment ils se sont dit que ni la meilleure personne bu leen mën a permettre ñu gagné ji c'est Barthélémy Diaz te Barthélémy Diaz à l'époque il avait le vent en poupe quand il à Dakar tu voyais que en tout cas l'électorat de Dakar les plus jeunes Barthélémy Diaz la ñuy et ñoom ils compris que ni jàppale Barthélémy Diaz mu gagné moo gën a yomb ci ñoom jàppale keneen et loolu c'est c'est quand même l'histoire récente li may wax nii c'est il y te journalistes yi notament yi am na ci ne ci Walfadjri xam nañ bu baax li may wax de la même manière Barthélemy Diaz loo ko mënti reproché bokk na ci leader politique yi nga xam ne ñoo gën a défendre Ousmane Sonko ci réew mi cest à que tey bu wax ji ñagas rek ñu bëgg ñu bëgg a euh, tronquer l'histoire Barthélemy Diaz il s'est investi pour défendre Ousmane Sonko Barthélemy Diaz boo fàttalikoo am na ay temps wax naa ko sànq. bu ñuy gazer euh, leader opposition yi bu leen policiers yi di sànni ay lacrymogène di leen euh, euh, dóor da nga daan gis ne Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias souvent ñoo doon nekk nii c'est c'est ça la réalité c'est ça la réalité Barthélémy Dias il a tout fait pour prendre la défense de Ousmane Sonko bu daan dem tribunal et tout alors quand euh, Sonko fait cette sortie là Barthélémy Dias ku ko xam. xam ne euh, comme di moom sax da koy wax làmmiñam nekkul ci poosam te que euh, stratégiquement du point de vue stratégique communication moom xamoon na ne c'est préférable moom Barthélémy Dias pour moom mu wax ne man maa demoon ci Macky Sall nii ak nii laa fa demee woon plutôt que mu bàyyi la presse sénégalaise ñu dem def seeni gëstu ba imaginel woon la presse def ay gëstu rek xëy suba rek def à la une d'un journal Barthélémy Dias moo demoon seeti Macky guddi bu boobaa Barthélemy Dias li wolof di wax to euh, bàyyi ba jaan dem nga topp ci watti di way dóor bu boobaa Barthélemy Dias day nekk ci position wu di réagir di expliquer moo tax xam naa ne xamu ko ku ko conseil je illa sais rien il a anticipé pour dire que ni loolu Ousmane Sonko di wax man mii maa fa demoon te demewul ni ko soo ko waxee nii ak nii ak nii ak nii la demee mais jën su ñu expliquer loolu ba pare wàllu stratégiquement lan moo tax mu wax. expliquer lan moo euh, euh, lié les deux hommes en tout cas ces derniers mois ñëpp gis nañ ni ñu mel même au euh, lors de des meetings et des sorties de Yewwi Askan Wi tu da ngay regarder da ngay seetaan télé jëru ngay dem xool ne y a une complicité extraordinaire qui s'était installée entre Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz léegi kay la question qu'on doit se poser une des questions parce que question yu bëree bëree bari la ñu war a laaj tey mais une des questions qu'on doit se poser jéen mooy lan moo war a tax Barthélemy Diaz lundi bi nga xamee ne cour d'appel ci lay prononcé wu si lay attewaat euh, euh, l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang nga xam ne ñëpp nee nañ il est fort probable ñëpp waxoon nañ ko ñu prononcé benn sentence boo xam ne. benn verdict boo xam ne mën na tax Ousmane Sonko bokkam ci élection dootul wóor ñépp ne si jamais juge bi prononcé condamnation wu si mois boo xam ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi mën na am des réactions de la population en tout cas des partisans de Ousmane Sonko lan moo tax kon jour boobu Barthélémy Dias tànn ci jàkkaloo ak taskatu xibaar yi lan moo tax. il a préféré le faire le lundi pourquoi man c'est une question boo xam ne maa ngi ciy wut réponse boobu ba léegi pourquoi le lundi il pouvait le faire le samedi il euh, il pouvait le faire le dimanche il pouvait attendre deux jours après le verdict mu wax pourquoi jouru procès bi lan la lan la ci Barthélémy Dias jublu woon je n'ai pas de réponse à ça parce que waxuma ci ak moom mais je constate et j'analyse des faits les faits mooy lan mooy moment bi nga xamee ne les jeunes euh, de de Pastef les partisans de Ousmane Sonko euh, notamment jeunes ak moyen jeunes moment bi nga xamee ne Diène waroon nañ di réagir sur le verdict prononcé par la cour d'appel nga xam ne mooy xañ seen leader d'après li ma dégg ci ñu bëree bëri du mu bañ a bokk ci élection ils ont passé plus de temps à réagir contre Barthélémy Diaz boo seetloo démb c'est comme si prononcé wuñu verdict boo xam ne boo deful ndànk day xañ Ousmane Sonko bokk ci élection ils ont passé plus de temps à s'attaquer à Barthélémy Diaz est-ce que loolu moo taxoon Barthélémy Diaz jóg je n'en mais mais le constat que je fais mooy la sortie de euh, de Barthélémy Diaz a détourné l'attention des gens de Pastef fi nga xam ne fa lañ waroon a euh, euh, Euh, teg seen attention dëgg dëgg dëgg mooy verdict boo xam ne dañ ko prononcé ñëpp ne voilà un verdict boo xam ne moom buñ deful ndànk moom mooy tax Ousmane Sonko du bokk ci élection nga dégg avocat wu Mame Mbaye Niang maître euh, Baboucar Cissé wax clairement que ni si Ousmane Sonko euh, ne fait pas un pour pourvoi en cassation ñu kase la décision du bokk ci élection yi si le jugement est définitif du bokk ci élection yi malgré tout regarde les réseaux sociaux ils les gens de Pastef ont passé en tout cas ñi ne ci réseaux sociaux yi ils ont passé plus de temps à commenter à réagir sur les propos de Barthélémy Diaz qu'à réagir ci li nga xam ne moo ëpp solo dëgg-dëgg pour ñun pour ñoom parce que dama jàpp ne que ñoom su fekkee ne Barthélemy Diaz Barthélemy Diaz mën nay saaga Ousmane Sonko fii ba déwén mais si Ousmane Sonko est candidat à la présidentielle ñoom li leen gën a soxal ñoom waa Pastef yooyu su fekkee ne focus 2024 boobu ñu wax dëgg la ci ñoom li leen war a gën a intéressé mooy comment faire pour que Ousmane Sonko des ci course bi et non dem di tontonte ak Barthélemy donc su fekkee ne l'objectif je ne sais pas vraiment je le dis et je le xaw ma lan moo doon objectif Barthélemy mais su fekkee ne l' objectif de Barthélemy c' était de détourner l' attention des fien par rapport ak li xewoon cour d' je pense qu'il a réussi parce que démb il y plus de réactions sur les propos de Barthélemy Diaz que sur autre chose alors que les les propos de Barthélemy Diaz man dama jàpp ne waxu politique dong la ku nekk nag ak ni ñu ko déggee beneen bi jën mooy euh, pourquoi Barthélemy Diaz ci ay propos le maire de Dakar Barthélemy Diaz ci ay propos am pourquoi il a voulu entretenir benn confusion sur des propos yoo xam ne dañ ko prêté woon Ousmane Sonko et même les gens de de l'APR même les gens de la l'APR ils ont voulu euh, euh, nu ñu koy wax sax euh, comment dire euh, alimenter cette confusion la te lim dalee Ousmane sonk dalee woon na ko Macky Sall nettali naa ko fi benn jour. bi Macky Sall demee Méridien président euh, Chris euh, nu mu tudd sax euh, King Fahd Palace wax ne am na ñuy wax noonu la Macky Sall waxee am na ñuy wax naan ñi ñëw di investir en Afrique dañ leen war a jox yëpp parce que y a des guerres parce que y a ceci y yi dagg am na ñu naan bàyyi fa ñi ñëw di investir au Sénégal en Afrique dañ leen war a jox yëpp parce que y a des guerres les gens ont prêté ces propos à Macky pendant des mois et des mois. ñu ko koy reproché di ko ci saaga di ko ci wax la alors que Macky Sall n'a pas dit ça de la même manière quand Barthélemy euh, euh quand les gens ont coupé une partie des du euh, de de la déclaration de Ousmane Sonko bi mu doon waxee ne xale yi dem nañ ba naan ku dee sa yaay juraat te moom mu jàpp ne loolu wërta ne kenn waru cee dee wax jooju dañ koo dagg ne Ousmane ko moo ne candidature am jaral na ko ku dee sa yaay juraat. Barthélemy Diaz mi nga xam ne moo reprendre ces propos là il sait pertinemment que ni ces propos ne sont pas d'Ousmane pour pourquoi Barthélemy a voulu entretenir cette confusion là naan wéy am nañu fi ne seen suñu bokkul euh, euh, dinañ bokk euh, seen bokk jaral na leen ay centaines de Sénégalais de ba àgg sax naan ku dee sa yaay juraat pourquoi ñoom ñu mën a wax loolu te ñun mënuñoo négocier mënuñoo dialoguer pour bokk man j'ai cherché lan moo tax Barthélémy Diaz a voulu entretenir cette confusion là te man xam naa ne connaissant un peu Barthélémy Diaz et et sa ses méthodes xam naa ne xam na ne les propos la ne sont pas des propos d'Ousmane Sonko il a rapporté des propos de ñi mu tuddee xale yi comme ni mu ko waxee xale yi ñi ngi naan ku dee sa yaay juraat te sax kenn waru cee dee ni mu dale woon Macky Sall Mérigné président noonu la dalee Ousmane Sonko mais léegi la question qu'on se pose mooy pourquoi Barthélémy Dias waxul ne am na xale yu ne ci Ousmane Sonko naan il faut ñoom ñu bokk ci élection yi suñu bokkul ku dee sa yaay jura plutôt mu wax rek ne am na ñoo xam ne nee nañ seen candidature jaral na leen ku dee sa yaay jura c'est une confusion que le maire de Dakar a voulu entretenir lan la ci jublu sénégalais yi ñoom ñooy jugé beneen bi mooy pourquoi à ce moment précis Barthélemy Diaz di def la comparaison parce que def na ko entre xalifa Sall bi ñu ko jàppee di ko yóbbu ci yoon tëj ko ci kaso ses réactions ak les réaction de Ousmane Sonko parce que Barthélemy Diaz à di oui am na euh, ku ne moom il n'est pas moom du xalifa Sall te du Karim Wade loolu Ousmane Sonko moo ko wax ne moom du Khalifa Sall te du Karim Wade et loolu Ousmane Sonko wax na ko budul benn du ñaar Barthélemy Diaz à toujours accepté ça. Parfois même, tu as l'impression qu'il l'a encouragé. Pourquoi à ce moment précis, il fait la comparaison entre les deux pour montrer euh, que ni Khalifa Sall il a été stoïque ñu yóbbu ko kaso tabaxal ko fa euh, nu ñu koy wax sax cellule tëj ko fa deful dara waxul dara il a accepté son sort alors que keneen mi ngi defee na na pourquoi à ce moment précis Barthélémy Diaz fait cette comparaison la si une question que je me pose beneen comparaison bu Ousmane bu bu bu Barthélémy Diaz def et qui également qu'on s'interroge ci dëgg-dëgg lan mooy objectif loolu mooy quand il dit politique bi gën a souffrir ci Sénégal ba Sénégal di Sénégal ba léegi ce n'est pas ñi nga xam ne ñooy wax léegi nañ ndax ce n'est pas Ousmane Sonko nañ ko wax noonu mu leer mais c'est plutôt Mamadou Dia c'est plutôt Mamadou Dia wax ne Mamadou jaa bi ñu koy jàpp il y a eu cent morts xaw ma jàpp nañ ko fi tëj ko fi douze ans de prison bi muy génn il est sorti aveugle gumba la la génnaale ba ni mu deewee voilà pourquoi faire cette comparaison la entre euh, Mamadou jaa bi nga xam ne les gens de de Pastef dañ ko dañu jàpp seen leader Ousmane Sonko comme une continuité de Mamadou Dia pourquoi faire cette comparaison là Mamadou Dia Ousmane ko li Mamadou Dia daj. Euh, Ousmane Sonko daju ko li mu Dia daj li Mamadou Dia daj beneen homme politique daju ko pourquoi lan la ci Barthélémy Diaz jublu seen une question que je me pose ce que je sais en tout cas moo di ne mu euh, Mamadou ja les socialistes la famille socialiste en général ñoom il ne doit pas être à l'aise quand on parle de Mamadou Dia parce que euh, Diène Mamadou Dia li ko dal yépp li Barthélémy di wax yépp kan moo ko teg le chef des socialistes seen père spirituel mooy Léopold Senghor moom la Mamadou Dia nekkaloon en conflit li dal Mamadou Dia yépp loxo sengoor a ngi ci donc tey bu benn socialiste taxawee euh, di di di di wax ci Mamadou Dia war na xalaat ne les socialistes ils doivent être mal à l'aise pour parler de Mamadou Dia même si même si à un moment ils étaient tous dans le même parti muy Mamadou Diaw ak Senghor seen coow yooyu ñu daan def la primauté du parti sur le euh, sur la sur le ni nga waxee sax l'état yu demee noonu ba mu jur coow mu jur ci réew mi yëpp mais en tout cas c'est une question que man je me suis posé beneen bi mooy autre question qu'on doit se poser bi Ousmane bi Barthélémy Diaz waxee démb ba pare mooy pour pourquoi tey euh, au mois de mai 2023 on doit faire confiance au président Macky pour quoi on on est en droit de se poser cette question là li tax ñu war a poser wu question boobu jéen moo di ne quand même Barthélémy Diaz moom moo ñu xamal ne Macky Sall n'est pas digne de confiance Barthélémy moo ñu xamal moo ñu jàngal ne makki Sall n'est pas digne de confiance moom moo toog ci Pape Ngagne Ndiaye sol grand bu jaune ne man duma toog ak Macky Sall ñu ne ko lu tax mu ne parce que wóoluwuma ko. waruma ko dem na ci sax ba ne dialoguer ak président Macky Sall mooy nelawal askan wi pour jàllale un troisième mandat Barthélemy l'a dit on peut les vidéos si vous voulez Barthélemy l'a dit alors diggante bi muy wax loolu ak tey jéen la question que chaque Sénégalais et en droit de se poser mooy qu'est-ce qui ba Barthélemy Diaz am confiance tey ne war nañoo mën a dem dialoguer ak président Macky Sall il l'a dit lui il dit que Euh, bu élection amoon tey ñi fi nekk di wax yëpp am nañ possibilité bokk mais ki nga xam ne moom amul possibilité bokk muy Khalifa Sall mën na cee yokk li ko mën a may mooy dialogue pour am amnistie là Barthélémy Dias encore une fois il a le droit de le dire il a droit de dire ñun mën nañu dialoguer ak Khalifa Sall ak Macky Sall parce que mooy le chemin bi nga xam ne ñun waa taxawu Sénégal moom lañ mën a jaar pour que Khalifa Sall puisse être candidat mais il ne peut pas dire que ni oui on peut faire confiance au président Macky Sall pour aller dialogue ak lui parce que moom moo ñu wax il y a quelques mois ci ginnaaw que ni Macky Sall on peut pas lui faire confiance. et bu ñuy dialoguer ce sera certainement pour endormir les Sénégalais jéem a jàllale une troisième candidature te mu ne woon te mu ne loolu euh, euh, euh, kenn du ko fi kenn du ko fi nangoo beneen bi mooy toujours des questions qu'on doit se poser Diène moo dina Diène sincèrement. est-ce que gëm nga ni est-ce que gëm nga ne président Macky Sall est-ce que gëm nga ne Barthélemy Diaz mën na ko dugal ci dialogue parce que ce que Barthélemy Diaz nu di c'est que moom Barthélemy Diaz appel au dialogue bi Macky Sall def c'est pas l'appel de Macky Sall c'est son appel je ne pas ba xam déglu ngeen ko il dit que l'initiative du dialogue de l'appel au dialogue jugewul ci président Macky Sall ci moom la jóge ci moom la juge est-ce que ku nekk am nga droit gëm la neex mais est-ce que mën nga gëm ne ak Sénégal ni mu toll yëpp Macky Sall ak ay collaborateurs am ak yëpp dem na sax ba wax fi moom président Macky Sall et c'est important quand Idriss Seck a dit que ni wéy dem naa julli timis ak président Macky Sall wax ko ne ko mën naa dem ci Ousmane Sonko wax ak moom euh, mu ne ma comment ma ne ko danga may bàyyi rek ma dem su ma amee résultat ma ñëw wax lu xam Ousmane euh, Idriss Seck wax na loolu. bi Macky Sall defee euh, émission ak Assane Gueye euh, jour Korité lan la wax daf ne santuma kenn mu dem di ma waxal ak kenn je ne sais ba xam ñu ngi koy déglu alors le même Macky Sall Barthélémy Diaz vient nous dire man Barthélémy man maa initier dialogue bi je ne dis pas que amul sincèrement parce que man du ma weddi lu ma fekkewul xaw ma dara mais franchement Macky Sall mii ma xam. président Sénégal bii ñu yor depuis 2012 ça m'étonnerait que du euh, ñu koy waxee sax euh, Barthélémy Dias di jàpp ci loxoom di ko dugal ci dialogue su Macky Sall engagé woo ci ab dialogue rek man li ma gëm c'est parce que moom moo ko bëgg moom le président Macky Sall moom moo bëgg la dialogue lan la ci jublu nag moom moo ko xam mais soo xoolee Diène en résumé li nga xam ne yépp moo xew ci diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias sorti Ousmane Sonko le dimanche sorti wu Barthélémy Dias le lundi wax ji nga xam ne yëpp wax ju ñagas ji nga xam ne woo jóg na et tout man daf may fàttali benn bindkatu tubaab bu ma mës liir bi muy bi muy bind loolu ma ngay wax ca homme politique ya ca France mais ndekete yoo Sénégal la koy wax daf ne en politique les alliés les plus sûrs son des ennemis en puissance son souvent des ennemis en puissance daf ne politique allié bi nga xam ne moom nga gën a wóolu gën la jege gën la wóolu allié boobu jàppal ne à tout moment mën a nekk sa ennemi bi muy wax bi may liir loolu ki ko bind sax jigéen la tur bi moo ma réer moo tax bëgguma ko wax mais bi muy bind loolu man bi ma koy liir dama jàppoon ne homme politique yi ca France lay waxal ndekk de yooyu ji Sénégal lay waxal parce que xoolal Sénégal ma euh, comme fekkewu ma lu enfin fekke naa ko mais euh, boobu nekkuma journaliste boo xam ne mën naay interroger les faits comme ni ma ko mënee léegi euh, reñu mais reñu Ablaye Wade ba ci bu Macky Sall xoolal ñaata kii moo fi am euh, moo tax Idriss Seck il est intelligent quand il a dit mburoog soow c'est bien trouvé xoolal ñaata mburoog soow mooy am ci réew mi mburoog soow ñu jaxasoo séparé après cere ak ñeex ñu jaxasoo séparé après beneen ak beneen beneen ak beneen finalement tu di dis mais ñii la classe politique sénégalaise lan la ñu bëgg et man je pense que je di pas que ni naïveté la ou quoi que ce mais les gens de Pastef les gens de Pastef généralement je crois que ñoom aussi dañuy tombe ci piège boobu Diène la politique rawatina fii ci Sénégal on le fait pas avec le cœur Sénégal fii ñi fi politique politique ñu ak ay sentiments et j'ai kër yi ni parfois ñoom ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy wax ñoom ay anti-système lañ ils veulent faire la politique autrement ils veulent que les choses changent et cetera et cetera j'ai très souvent il faut confiance très vite à ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ils ont tellement confiance ci ñoom que ni bu ñu gisee li ñu tuddee trahison am seen diggante rek ils sont presque abattus pourquoi parce que xaaruñu woon loolu mi ngi mel ne rek suñu copain bi xaw am nga jabar mi ngi mel ne rek ngay wër di wër ba gis xale bu jigéen boo bëgg ngeen di ànd pendant des années lu bëgg nga defal ko yaay léppam wóolu ko et tout ba yow bu ne la bu ne la jëlal paaka rey nit sax nga rey nit nga marié ak moom nangam ak nangam affaire bi dem le premier euh, conflit bi am seen diggante rek sëy bi tas buñ la waxee danga nga naan non c'est pas possible loolu mënta nekk kii dama ko wóol dama am ci moom confiance politique c'est sooy joxe amal looy Sénégal bi sooy joxe amal gis nga loo am am confiance ci politique même boo fi bokkee parti jéen koo bokkal ndey ak bàyyi ngeen bokk benn parti loo am am ci moom confiance amal looy téye. ba bu ëllëgee su posé beneen at bu bañ la bett trop mais waa Pastef bi gis nga euh, damay xool dem ba léegi ay statut yoo xam dañ ciy def ay vidéo ay Babacar Touré ay Karim Xurum Xaq ay euh, Pape Alé yoo xam ne ñoom ñoom ñu ma tudd lii di xew nii doon nañ ko wax yaa ay huit mois ay di mois lii xew nii ñoom doon nañ ko wax te bañ ko doon wax kenn bëgg ko dégg kenn bugg ko dégg maam Biram Wàcc bu Walfadjri toog naa fii benn émission ak moom mu wax ne Barthélemy Diaz bokk na ci li ko sonal mooy dafa gëm ne moom nekkam mairie Dakar continuer di fa nekk ci Macky Sall rek la dépendre parce que Barthélemy wax na ko wax na ko démb fàttaliwaat na ko il a un dossier bu koy xaar en justice ci l'affaire Ndiaga Diouf boo xam ne si une décision définitive la condamnant et prononcée mën nañu ko retirer nangu mairie bi ci Dakar mairie Dakar nangu son mandat de député ma Mame Biré wax na ko fi plusieurs fois et quand il le disait je partageais pas trop cette analyse là ak moom mais soo xoolee lii xew depuis quelque temps tu te dis que ni il a il a raison Mame Biré Wathie que ni gaa ñi ñu jéen ak a naqaree wax mais gaa ñi eh, Macky Sall dafa fu mu leen téye dafa naqaree wax nag parce que Sénégal wax fi dafa jafe. yan saa yi nga wax dara nit ñi duñ dégg lan moo tax nga koy wax ak foo koy waxee euh, yaakaar ne da nga euh, contre di wala nga ànd ak jiw mais la réalité tey mooy suñu classe politique bii ngay gis du mën a ñëpp mais bari na ci ñoo xam ne Macky Sall dafa dafa am fu leen téye dafa am fu leen téye. foo xam ne parfois euh, nga gis suñu classe politique ñu poser ay acte wala ñu wax wax yoo xam ne yow sa bopp da nga naan c'est possible diw nan la mën a waxee nangam diw nan la mën a poser tel acte ab en la question qu'on doit se poser mooy est-ce que bi muy def loolu il a toute sa liberté de le faire je di pas que ni Barthélémy Diaz est dans le même groupe je ne le dis pas parce que bëgguma ko waxal lu ma xamul mais ce que je sais mooy moom ci boppam fàttaliwaat na ko démb wax na ne gars ñi dañ ma jaay doole daan ma en première instance jaayaat ma doole daan ma en appel te mën nañ ma jaayaat doole daan ma en cassation et si c'est le cas s'il y a une décision définitive ñi jàng droit di ci wax ak journaliste yu bari bokk na ci Mame Birame Wathie wax nañ ne président Macky Sall su ko neexee Barthélémy Diaz ñàkk mairie Dakar ñàkk le poste de député est-ce que ceci peut expliquer cela je sais mais en tout cas c'est des questions qu'on est en droit de se poser mais nag jéen dafa am loo xam ne sëriñu suñu politiciens yi moo ko waxoon suñu politiciens yi dañu am seen benn sëriñ boo xam ne moom lañ gëm ñoom ñëpp en tout cas ñëpp ci ñoom muy Machiavel mooy seen sëriñ daf ne woon le trompeur trouvera toujours quelqu'un à tromper le trompeur trouvera toujours quelqu'un kii se laisse tromper gis nga Sénégal man dama gëm ne la population ñoo war a yeewu xippi seeni bët ci suñu homme politique yi man mas naa wax fii benn jour ne un homme politique sénégalais rawatina ku yore pouvoir aw ma benn yërmande ci yow bi ma ko waxee benn waaye woowu ne ma bàyyi li ngay li ngay wax ma ne ko mais attends waxuma nit ki en tant que nit parce que nit ki doomu aadama la maa ngi moo ma yem on a beaucoup de défauts peut-être même ils ont plus de qualité que moi nit kooku beneen affaire la mais l'homme politique qu'il est awma benn sentiment ci moom pourquoi parce que je me dis que c'est un homme boo xam ne man na mel nii bu sabab mel ne te man ju refuse d'être victime de cette phrase là bi Machiavel waxoon mooy le trompeur trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper on peut me tromper mais je ne me laisse on peut me tromper nag parce que nit laa comme ñëpp il arrive que ma ne non lii mënta nekk parce que man euh, quand Ousmane Sonko a dit que ni am na un homme politique boo xam ne dem na kër Macky Sall 22h ba union h ma matin ñoom ñaar ñuy waxtaan dama ne xalaatoon naa ñu bari ci biir yeewi askan bi te xam naa ne nañ ma baal àq parce que am na ñu ma numéro xalaat mais mosuma xalaat Barthélémy Dias sincèrement très franchement. autre question d'ailleurs jéen qu'on est en droit mooy su fekkee ne Barthélémy Dias comme ni mu ko waxee. dafay dem seeti président Macky Sall waxtaan ak moom ne ko li ñu daloon ci forom mondial de l'eau gàcce bi daloon dakaar daloon Sénégal waruñu dalaat ñu waxtaanee loolu jéen yaakaaroon ne li doon gën mooy def na Idriss Seck defoon Idriss Seck ba muy dem di seeti président ab Abdoulaye wàdd dafa dem bëccëgu ndara kam moom lañ doon woowee les audiences de midi midi dafa Idriss Seck dem xam nga kooku soo ko gisee da nga da naan kii laaxatuwul mais ñun Sénégal buñ ne laa un adversaire du président Macky Sall dem na gisee ak moom 22 heures ba une heure du matin forcément sa xel dina xalaat tey jii man gëm naa ne su Macky su euh, Barthélémy Diaz maire Dakar demoon palais de la République ñu recevoir ko fu bëccëg ñëpp di gis télévision yi ñëw mu toog ak Macky Sall su ko neexee ñu toog deux jours di waxtaan mu génn ñu laaj ko mu ne lii ak lii laa fi dox si woon dem yoonam suspicion bii di am yëpp du mais le fait d'y aller la nuit ba pare moom ci biir waxam mu wax ne ñaari doomu aadama dong ñu yëgoon ne dina fa dem muy xalifa Sall ak soog ko mais y a y a des suspicions légitimes les gens ont le de se par rapport à ce qui s'est passé et d'ailleurs loolu moo tax faatu ci la ñuy jeexale ma doon wax ne d'ailleurs tey j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la conférence de presse de Yewwi Askan Wi soo xoolee Yewwi Askan Wi ce